leen jaajëfal si bee kóolute gi yéen ñu ñuy suivre si Dakar tey nag weekend buzz dañ koy dooreek spécial ndéwénal bu Youssou amaloon ba ñu tabaskee ba noppi ci noonee nag ñu nemmeeku woon ca Kiné Badiane nekkoon jabaru Amady Badiane nekk tamit feccikatu Viviane Chidid moom nag na mu ñëwee sa soire ba mooy di ab tenue bu sexe ci la sa sol ba ba mu yegsee rek bët yëpp dafa tegu si moom mu daal di affolé sax public ga fa nekkoon. Habib mu ngi wane ma moom nag la leerul ci boppam rek mooy critère sélection gu joueur UEFA si at mi moom nag ancien international sénégalais gi ba noppi nekk consultant Canal Plus mu ngi ko wane si page Twitter am gannaaw ba mu sampee laaj bu njëkk bi ni Sadio Mané a dû faire une saison moyenne laata muy yokk rek si kàddoom ne Mohamed Salah aussi visiblement loolu képp la bind. si page Twitter euh, boole ko ay point d'interrogation ak i point d'exclamation yu bëri muy fësal lekk jaaxle gu mu am si mbir mi ñu àddu si ñàkk déggoo gu am si diggante commissaire Sangaré ak pharmacien bi di docteur Gaye Queen Biz nag yëkkati na si ay waaye moom moomee commissaire Sangaré la àndal gannaaw ba ma xamle ne li muy wax yépp dafa am lu ko si leer naññ moom nag la mu xam le mooy lépp lu ñuy wax tuumaal kii di commissaire Sangaré si réseaux sociaux yi dara amu si ndaxte moom lu rafet lekk la ko xamal si koñ ga mu yaroo sax moom Queen Biz mu ngi xamle ne depuis ba mu nekkee tout tànk ba tey. ñëpp lu rafet lañu ko seedeel moom commissaire Sangaré bokk na ci imam yi chef de quartier yi yaay yi papa yi ba ci sax ndaw ñi. Alaaji Aziz Niang ak uh, ajaratu Bessel Bass amal nañ seen aj ba noppi foofee ca diwaanu Makka waa Dakar Buzz yëpp di leen ñaanal ñu ràppal seen ib kaala neen navire hôpital Africa Merci daal dinay ñëw si Dakar bateau bi nga xam ne capacité mu ngi toll si 1200 mètres carrés ñëw na fii nag ci diwaanu Sénégal war fee am 10 mois maanaam fukki weer si si biir 10 mois yooyee dinañ fi faj rek lu toll si 3000 patients sénégalais ba noppi former fii 200 agents waaye itam technicien de santé loolu nag ministre de la santé bi di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko xamle. ci ab cérémonie bañ fa doon amal foofee ca poor autonome de Dakar ci teewaayu première dame gi di Marième Faye Sall ñu àddu si mbirum Diaba Sora nga xam ne foofee ca Dubaay tegal nañ ko rek si kaw lal koppar gu tàkku gu toll si 200 millions de francs fa gannaaw ba mu jëfandikoo lu toll si 35 million képp si séjour ba mu fa doon amal askan wi nag samp si ab laaj di laaj rek lan ban business la Diaba Sora rek di def ngir gagné bile xaalis gu bari. nakar ak tiis daal dinay dal Didier Arafat moo daal di làkku amoon fanweeri at ak ñett moom nag daal nay woon ginnaaw doomam ju góor gi waaye tamit fiancé bi di Carmen Sama nga xam ne sax moom mooy yaayu doomam gu jigéen gi ñuy wooye Rafnat coach gaynde yi di Aliou Cissé ak laaj laaji Ousseynou Diouf ñoom ñaar ñu ñuy nag euh, demoon nañ rek sa kër milliardaire bi di Babacar Ngom euh, comme nuñ ko gisee noonu rek si foot yi mu mel nii rek partagé nañ moment wu jàmm ak salaam. tabaski 2019 Bouba Ndour passé na ko ak famiyam ay doomam ki jabaram waaye bila yoon passé na ko ak beneen jabaram bu dul Viviane Chidid mu mel ni vaar am na ci xiiroog ŋaayoo gu am ci diggante commissaire Bara Sangaré ak docteur Cheikhouna Gaye mu nekk ca pharmacie Serigne Mouhamadou Falilou Mbacké bu Patte d'Oie bañ ca defee ay saytu nag ca police ga gannaaw ba coow la amee ba noppi ñu nemmeeku ne docteur docteur Gaye dafa rekk euh, poñe ba noppi violenté kii di commissaire Sangaré si noonu nag moom euh, docteur gay di jéggalu gannaaw ba mu xamle ni lu waral mu comporté woo ni ni mel dafa fekk mu mer ba noppi xamul woon na rek euh, monsieur Sangaré ab commissaire la. ali lañ leen indiloon si buzz de la semaine ñu leen di jaajëfal si ànd bi kóolute gi di leen jox di daje ba beneen semaine jërë ngeen jëf.